Mariama Jàkkeere way tey mu moongo may tëgg Mariama a fa nekk hélas tam ñëw nañ comme sponsor moo tax ma ne Zador mënu fi woon a ñàkk waaye nañu ñuy ñëpp ñi ñuy suivi ci Equivox TV. moo ras sa nekk droite leket à kii dëkk Banjul muy France kee dëkk Baara. muy leket am na lu arbitre yi d'accordul de cey lamb waaye mention spéciale à Jamaïcain drapeau international nga tëgg Youssou Ndour te drapeau la ñuy bëree fii ci Gambie kan moo ko def Jamaïcain muy nuyu peuple gambien bi yëpp xulle France ba tey ñu ngi koy fomp France loo laal léegi déggoo nañu yëkkatil say loxo ndaysaan fii su fi lamb tolloo waaye gàmmi seen stade bii day macha allah rafet na lool arbitre baa ngoongoog ñoom fii la liiru jaan ak wulli bëree woon waaw jamay ken ko defoon Abdou Waxal bëgg naa la doomu séeréer la Abdou Waxal yëkkatil say loxo yëkkati na moom France lamin maa ngi lay bëggee di nuyu saane yëkkati na ay loxoom déggal yuuxoo yi soufflé naa am na lu mu sotti wala mu tojub nen France foo jëm France fu mu jëm France arrière na de ay waay Gambien yi maa ngi leen di bëggee waay toog Babacar. arbitre daa war a wàcc wàcc na cey loola lamba ngi jamay kee de kee jar naa jàppale jar naa ñaanal waaw parce que nag xale te am na ambition ndax lii mu def ci Gàmbi te bii du guleet déedéet da koo tollanti kay defoon na ko fi bàyyi ma njoon xoyantaan coow tax yeggul ndax daggi weeg duma ko dagg waaye ñii nag tey moom arbitre soufflé na amul dagg ay weeg duma ko dagg léegi kay kuy xeex kuy song France kuy daan leket lii mooy question bi laa ilaha illallah Mouhamed Ali Ndiaye maa ngi koy Pong Ibulaay Pro Auto Ibulaay bu xarañ loo ca Sénégal cey jamaïcain waaw daa def affaire di jam daa def affaire arbitre ngay dem sa ñoom de arbitre bàyyi leen arbitre bàyyi leen cey loolu Mariama Jàkkeer a fa jamaïcain da ngaa def affaire waaye ku ne jamaïcain ne groupe baax maa ngi nuyu wax groupe baax yëpp président Massamba Dieye Soro Mali xaadim bal la xaadim jabu la neexee Eliman bu Tafatin Lamine boo ma seen Issa ama seen Marème Balla laay bu Faas Awa Diop te Touba bu Balla Gaye 2 koy béggee di nuyu 100 pour 100 Babacar cey lamb ñu ngi lewaatoo ana Cédric Marcelin Ndour yal fa saaxoor mbër yaa ngay lewaatoo grand laay l'homme de deux ñaari mbër yaa ngay lewaatoo Papa Ndiaye bu Joal foo féete France ak ngay lewtoo xeex amagul dara xewagul lewaatoo di xoolante cey làmb waaw waaye samedi bu ko kenn jaawaleel 19 arène nationale sànni na ko gos moom France arène nationale ca Sénégal Tyson 2 francs Mama Lamine Garga 2 ak Vox Arena loolu dana neex dana yëngu changement de pied bi lu ko waral France France ndax loolu wóor na hey Leket door na ko de gos boobu dal na de France gos boobu ñu la door dal na de France xoolal li ngay def moytul France gos bi ñu la door dal na ñu ngay xeex de ñu ngay xeex de eh te bu yàgg lii mooy Modou Lo Balla Gaye bu Sénégal. waay ñaari mbër yi waay doorante am na xeex am na Lamine Seck lamin lamin Lamine combat baa ngi commencé neex mu ngay commencé neex waaye song ci kaw ci suuf ba lay wax nga dëgg France na xool ci suuf bu laaw daw na jëli fàq nañ ko gëdd ko France foo jëm France foo jëm laa ilaaha illallah eh France leket combat raag xeex eh cey bi combat ñu ngay lewaatoo waaye xula li may gis ay kalasnikof ay kalashnikov laay gis ak ay kagul loolu mbaa wóor na ay kalashnikov gis naa ko de xule taalibe Baay Ñas borom ñooro waaye Habib Seck maa ngi koy bëggee doomu ñooro la eh bëre boo xoolee ba tey songooguñu France nga koy Leket koy gëdd xeex door mu daanu jël na ko door mu daanu door mu daanu door mu daanu jàpp na jara saye door jàpp na jara door ardo ardo Leket ardo jël avertissement léegi ku ne am nga avertissement ku ne am nga avertissement mooy France Laaw gos jàppante nañu de daman baaram boo xoolee bopp dañuy xeex mais bëree guñu bëree leen ci géew bi daw na di ko jël jël amagul ku daan leket na ko eh arbitre nee na leket daan na arbitre nee na leket na ko arbitre nee na ko leket daan ko leket nee ko boo bëggee nga ñëw eh France